asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp ku si nekk si turam ak santam waaw ñun dañu nekk ay jeunes yu nekk UJTL euh, nekk de jeunes cadres de professeurs euh, ñu xool ne euh, actuellement maa ngi jéggalu si si moo tubaab yi may dugal parce que professeur français laa day xaw a jafe si man tuuti ma wax olof bi ñi ñu xool situation école bi école yi actuellement nu muy doxee nu mu mettee lan niveau des élèves élèves yi seen niveau dafa wàcc ñu gis na tamit ñun ñëpp en étant des enseignants ñun ñëpp nu ñu nekkee ay jàngalekat yu ñu nekk zone yu différent kii mi ngi ba Tamba kii mi ngi ba Ziguinchor kii mi ngi ba Saint-Louis kii mi ngi si mi ngi ba Thiès bu ñu nekkee ci classe yi dañuy gis difficulté yu élèves yi di am ñu xam ne ne élèves bi neuf mois de d'études yu ñuy def neuf mois yi ñu nekk ci biir classe yi doyu leen et puis toujours habitude du wax naan élèves yi seen niveau dafa wàcc seen niveau dafa wàcc ñu en tant que des professeur ñu ne dañuy dugal suñu loxo ci enseignement bi du ñu yem ci neuf mois année scolaire yi déedéet ci vacances yi tamit dañuy xool nu ñuy dugalee suñu loxo ci biir vacances yi parce que vacances citoyennes am nañ gis na fi ña nga xamante ne ñu ngi def ay tournée di wëndeelu ci dëkk bi yépp di def ay concert nit ñi di fecc ñun dañ koo xoolee ci beneen angle état puisque nit ñëpp dañ ne école bi dafa am problème donc dañ ciy dugal suñu loxo ci vacances yi mooy woo ay élèves toute d'obédience nag politique parce que xooxu noonu nañu ne élèves bu parti démocratique sénégalais rek la ñuy woo waaye déedéet dañoo woo élèves bu Thiès yépp passé ko ci rajo pour ñu ñëw participe ñëw bokk ci cours vacances yu jeunes UJTL yi di def cours de vacance yi nga xam te dañ ko def gratuitement maanaam kenn du fay dara cours yi kenn fayu fi dara ba ñu ñëwee am na ñu ci jàpp ña nga xamante ne tax na élèves yi ba fi ñëwee dañ leen jox ay cahiers matuwaay yi nga xamante ne moom la ñu jàngee parce que xam nañ ne du ñëpp ñoo jot seen loxo gannaaw am na ñuy organiser ay cours de vacances yi nga xamante ne dañuy fay ay ñaari junni par weer ñu koy fay ñun nag dañ ko gisee autrement pour dimbale suñuy rakk yi nga xamante ne soxla nañu cours de vacances yooyu liggéey boobu nag am na ñu ñu ci jàppale ñu duñu lu ñuy ku ñuy tàmbalee mooy capitaine Racine Niang mi nga xamante ne moom mooy coordonnateur euh, commune ouest bu Thiès ñu jël ko parrainel ko tamit cérémonie bi ñu jël ko parrainel ko cérémonie bi ndax euh, jàppale nañu moralement jàppale nañu financièrement tamit jàppale nañu maanaam gunge nañu ci cours de vacances yi ba mu tàmbalee ba nuñ ko pare tey jii 21 jours ci gërëm yooyu tamit ñi ngi gërëm euh, Demba Ndiaye bu bokk ci cadre yi mi nga xamante ne moom moo ñëw andil ñu ay kaye jël kaye yi ne lii dama ko jox élèves yi pour ñu seen jàng gën a yomb si euh, jaajëfal yooyu tamit ñuy jaajëfal secretaire général bu UJTL Nord Birane Gueye moom itam jàppale nañ si euh, di di di di di jaajëfal tamit dem euh, Mor Diouf li nga xamante ne otoom daf ko mettre si suñu disposition lépp lu ñu soxla ci otoom moom mooy jël taal otoom def ci essence yëpp duñu ko doxal ñu ngi ko ciy jaajëfal di jaajëfal tamit professeur jàngalekat yi nga xamante ne dañoo toog ak vacances nu mu neexee ku ci nekk tëdd sa kër di tëdd di nelaw di grasse matinée ma woo leen téléphone sollicité leen ne leen ñun élèves yi laaju ñu leen dara dañu leen woo ne leen ñëw leen ngeen def cours pour jàppale leen ndax xam nañ ne niveau bi il faut ñëpp di ci jàpp ñoom nag ci seen baaxaay ñu accepté gratuitement ñëw fekk si ma si cours yooyu muy Fatou Juma Diop miy toog di professeur philo di Moutaga Gueye muy toog sama côté di professeur di professeur Issa fàttewuñu tamit monsieur Alioune Ndaw di prof mat ba nga xamante ne aussi fii lay servir ci Thiès ñu ngi leen nouveau lycée ñu ngi leen di gërëm ndax bañ leen woowee wax leen projet bi teguñu si baat dañu ne ñun on est des citoyens on est des professeurs te tamit luy jëmal njàngale bi kanam ñun moom moo ñu intéressé donc initiative yu mel nii suñu gisee ay jeunes am ko dañuy bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw jàppale ko donc bés bu nekk lundi ba vendredi professeurs yooyu ñu ngi fiy ñëw de 9h jusqu'à midi ñu ngi fiy toog ak ñun di def ak élèves yi cours joxe seen numéro téléphone élèves yi ñu leen di woo chaque instant tout le temps pour di leen poser ay questions ya nga xamante ne am nañ ci ay jafe donc ci loolu laay laay terminer di dénk sama euh, élèves yi nga xamante ne ñoo ngi jàkkaarloog man di leen wax ne jàng jafewul mais il faut nga def ko xam li nga bëgg ci àdduna parce que boo toppee fow bu bari bi topp euh, télévision yeeg feuilleton yi nga xamante ne moom ngeen bëgg euh, fàtte études yi du sotti ñii nga xamante ne élèves terminal la ñuy def parce que cours yi ñu ngi ko defoon seconde première terminale c'est une première mi ngi koy doo di tàmbale moo tax ñu ñu ñu fixé aussi élèves yooyu seconde premier terminal ñu leen di ñaax pour ñu élève yuy def examen ñuy def concours yi ngeen gën a concentré wu davantage ci seen étude ngeen gën ci concentré wu davantage parce que sa programme boo ko assuré rek di toi bien que jour examen duñ la jox la nga xamante ne jàngoo ko parce que examen bi lu ñu leen di jox ci programme bi lañ koy jëlee donc dama leen di ñaax seen programme boobu na ngeen ko euh, assuré ba jàng ko lépp bu leen xaar tamit ci professeur bi lu mu leen di jàngal kese parce que élève tamit bi këram dafa war a di jàngal boppam seen jàng warul yam rek ci école ba bu ngeen génnee école bi teg kaye yeeg saa gi fàtte jublu ci leneen jàng ba dafa war a yeggali si biir kër ga pour ngeen bëgg am li pour ngeen am euh, li ngeen bëgg si seen àdduna donc ci loolu daal laa leen di remercier yéen ñëpp ak invité yu fi toog yëpp ñoo fekk suñu si bis bi ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal di wax élèves yi du courage et bonne continuation di sant yàlla di julli si yonent bi di ñaan yàlla ñu dugg si bismillah maanaam génne si alhamdulilah rabil alamin euh, ñu def Fatiha Ixlaas Falaq ak Naas si ayati kursiw ak salaatu ala nabi bu waaye man ñu dugg si bisimilah maam génne si alhamdulilahi rabil alamin asemin seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalin bisimilahi rahmaani rahim qul a'uudu bi falaqi min sharri maa xalaq wa min sharri xaasidin idaa waqab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 wala yujuuna bi shay'in illaa bimaa shaa'a wasi'a kursiyyu samaawaati wal ard wala yujuuna hifzahuma wa huwa al-'aliyyul 'aziim allahumma salli ala sayyidina muhammadin xaatimi limaa xuliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil 'aziim inna llaaha wa malaa'ikatahu yusalluuna 'alan nabiyyi yaa ayyuhallaziina aamanuu sallu 'alayhi wa sallimu tasliiman sallallaahu ta'aalaa 'alayhi wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yasifuun wasalaamun wasalaamun wasalaamun fi dunia wal axira wasalaamun alal mursalin walhamdulilahi rabbil alamin bon euh, mbooloo mi ñoo ngi leen di gërëm ku ci nekk turam ak santam leen baal wax leen baal àq di ñaan yàlla mu baal ñu àq di ñaan yàlla li ñu li ñu jublu yàlla nañ ko ju yàlla nañ ko fekki déwén fekke ba ànd ak tal ak wér sutura ak tàng barke tabaski bi ñu génn euh, lu ñu si jaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul di bay di bàyyi xel waaye dawul wi particulièrement le bi général de xaadir moo xam moo fi jógee si fan yi ñaanee yàlla yokk leeram taas ñu si barkeem ba loolu wéyee notre journée d'aujourd'hui nous allons entamer la séance par le discours de bienvenue de, de l'initiatrice euh, du projet, à savoir Madame Nian, après son discours, euh, allons donner la parole à un professeur. Ensuite, on va donner la parole à un, élève. Après, on va donner la parole pour différentes structures du Parti démocratique sénégalais qui ont participé à l'exécution de ce projet. Et on terminera notre journée par le, par le, le mot du parrain. Ensuite, comme on a l'habitude de dire dans l'armée, on va sanctionner tout. avec euh, la main dans la pâte, comme on di ou bien la main dessus, <laughs> on waa foncer, on va aller vers la table, comme disent les commandos, quoi. Allez, c'est pour sanctionner le tout. di ñaan yàlla ñaan ko tàmbalee si bisimilah rahmaani rahiim eggale ko si alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku nekk ci tur ak sa sant di wax li soxna si wax sànq rek di gërëm bu baax di sant bu baax. soxna jaaritu ñaay bi nga xam ne moom moo am mbébétu organiser cours de vacances comme ni ko waxee sànq comme ni ko ñu bëri waxee sànq cours de vacances dafa metti dafa metti organiser dafay metti ci élèves yi metti ci ñu parents d'élèves yi metti ci ñu eh, jàngalekat yi jàngale cours de vacances lu tax ma wax loolu mooy cours de vacances ku ne xam ne la vacances pour noppalu la pour noppalu la boo jàngee neuf mois day ñetti weer yi nga xam ne danga koo am da koo war a da nga ko war a noppalu mais comme ni ko jaarati waxe waxee sànq rek jafe-jafe yi am ci jàngale bi moo tax man de bi ñu ma woowee ne mag dafay organiser ay colo vacances à la di du PDS dama ne ko man fu ma nekk di defu ma dara donc war naa cee mën a dugal sama loxo war naa cee mën a jàpp loolu nag. lu am solo la ci àdduna parce que fi nekk ni ku nekk xam nga ne jàngale bi am na ay jafe-jafe grève yi bëri na mooy perturbation yi am ci année scolaire bi niveau élèves yi wàcc na wàcc boo xam ne ku nekk teg ci sa bët loolu nag ku nekk da cee war a dugal sa loxo léegi jurul tax ay ay affaire parti politique ak ak parti politique ku nekk parent d'élève beeg élève beeg ku nekk war nga cee mën a dugal sa loxo parce que loolu moo tax moom mu jël initiative bi te jàng dafa am solo ci réew. ku nekk xam na ne jàng ñi ñuy jiiteeg ñu ñuy jiite ñun ñëpp xam nañ ne jàng moo réew jàng ci la base du développement nekk réew yi ñi xam ne ñoo wër ci àdduna bi yëpp jàng la rawee seen nit la ñoo jàng damay am li may wax nii dama koy firndeel ci teewaayu koo xam ne jàngal na ma moo ma jàngal sem jàngal ma sem2 moo ma transféré fii Thiès tey muy Mbaye Samb muy toog ñu bëri xamuñu loolu di wane ne di wane ne loolu rek mooy mooy àdduna moo ma jàngale moo ma fekk ci dëkk bu ma dëkk bu sooy village dama jàngale sem sem de jàngale samay mag ba tey man ma mën a toog di wax kon donc loolu man mën naa tax man ma am possibilité mën a fay ñeneen ñi donc lu ma def rek defuma ko pour sama bopp mais dama koy def pour comme moom ni ma ko defee ma defee ko noonu te jii maa ngi fu sori mais heure bu ñu ma waxee dama naan leen man dafa dafa am ñu jóge ci àll ba ñoo jàngal ma dem ci àll ba jàngal jàngal ne ma far jàngal genre mission laa laa ko tuddee man ba tax na maa ngi ñaax élèves yi dina wax ne ñu góorgóorlu condition yi de condition de vie ci jàngale du am na solo mais bariwut lim jàng lim njëkk laaj mooy bëgg doomu lu muy def da koy bëgg jafe-jafe moom du ñàkk àdduna doomu adama lu muy def ci àdduna day am jafe-jafe mais jafe-jafe yi da koy tëb li nga koy tëbee nag mooy bëgg gi ambition bëgg mbëgg gi mooy tax yow loo yi nga daan ko loolu daal laa amoon ci li ma ci sant ay kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp kenn ku ci ne ci turam ak santam jiital ci nuyoo bi euh, responsable parti démocratique sénégalais yi nga xamante ni ñoom lañu fi fekk Euh, jiital ci nuyoo bi suñu papa di parrain wu journée bi muy capitaine Racine Niang jaarale ci moom nuyoo bi mu yeggeel ñu ko képp kuy responsable te toog fi euh, profité ci ocasion bi si jaale suñu papa euh, Ibrahima jóg bi nga xamante ni soxnaam daf fi jóge ñu ñaanal ko yàlla yàlla xare ko aljana ñu ngi nuyu également responsable yëpp donc suñu nuyoo capitaine pour ne pas monopoliser la parole ñu ngi féliciter di encourager au nom de l'UJTL de Thiès et au nom du frère secrétaire général de l'UJTL national docteur Toussaint Manga ñu ngi féliciter di remercier bu baax suñu sœur Diarratou Niang moom moom Diarratou Niang exemple la ci structure bi nga xamante ni moom la ñu nekk di ko partager parce que tey politique c'est vrai ni ñu koy pratiquer à la base dafa yàqu mais bu ñu bu ñu delloo ci définition bi lii ngay def mooy politique bu dee dañu retourner ci définition politique yéen ñi ma yéen ñi jàng ngeen gën ma xam ne la politique c'est l'art de participer à la gestion de la cité aujourd'hui ce que vous venez de faire montre réellement que vous êtes en train de participer nest pa à la gestion de la cité et nu vous félicitons yow ak professeur yi nga àndal yëpp su ko defee li ngeen wax également ci élèves yi man de duma am surprise année scolaire bii ñuy ñëw nga woo ma nga ni ma élèves yi ma doon encadré ci vacances yi ña ci doon def BFM réussir nañ ko ñi ci doon def bac réussir nañ mais également ñi nga xamante ni defuñu woon examen passé nañ en classe supérieure loolu duma ci am benn surprise parce que lii da nga ci sonn il faut le dire c'était pas évident c'était pas facile mais da nga da nga dem ak sa ngor dem ak sa jom moo tax man démb 4 heures du matin laa jógee Dakar mais dama ni lu mu metti metti dinaa ñëw teew pour encourager la sa à dire encourager une personne bu nga xamante ni day def lu baax ce n'est pas le fait de rester là di ko woo téléphone wala nga naan ko bëggoon naa ñëw wala yu demee da ñëw nga teew pour wan ko ne ko moi je suis tout cœur avec avec avec donc lii moo tax man ma ñëw. maa ngi lay féliciter maa ngi sa ginnaaw et maa ngi lay wax ne également da ngay def fierté wu toute la jeunesse sénégalaise parce que aujourd'hui li nga def du defaloo ko PDS kese y a des élèves qui sont là yoo xamante ni ils ne sont pas du parti démocratique sénégalais seeni parents bokkuñu parti démocratique sénégalais donc da ko def pour Sénégal donc Sénégal tey ameel na la njukkal njukkal boobu nag tey neexoon na suñu. kilifa Toussaint Manga ñëwoon taxaw fii wax ko mais comme que newu fi également ñun mën nañ ko waxal parce que am nañuy responsabilité au niveau national et au niveau local maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ku nekk ci turam ak ci santam mhm. ginnaaw bu leen nuyoo kenn ku nekk ci turam ak ci santam yéen ñu fi teew ñëpp ci cérémonie cérémonie bi di tëj euh, cours de yi ñu jotoon a am fii ci permanence parti PDS bi Euh, bu duré mu duré ñaar fukki fan ak benn de 9h à 11h euh, di nekk nekk nekkoon na benn benn benn projet boo xam ni lu ñu arrangé la ñun ñuy élèves yi parce que dinañu permettre année bii du ñëw année année scolaire bii du ñëw ñu mën a am au moins benn avance ci classe bi ñu jëm mais aussi ñu. Euh, si vacances yi ñoom ñoom quelque occupation xam nga moo gën ñu nekk ci mbedd mi di taxawaalu xam nga ak ak nawetaani yi yi xam nga ne nawetaan yi moo yóbbu suñu temps yëpp ñu bañ see yàq suñu suñu temps ñëw participer si ñëw participer fii si cours de vacances yi bon xanaa aussi ñu ñu remercier encore une fois madame Diarra Niang moom moom mi am moom am euh, initiative bi euh, organiser cours de vacances yi. ak ñi mu si àndal ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm yéen ñëpp jërë ngeen jëf